leen di nuyuwaat bu baax a baax ci site bii di leen xamal ne ba tey yow mi nga xam ni nii da ngaa xam xam nag soo ko déggee mooy sa yaram yore loolu ñuy wax saaru ay xër xër yoo xam ne nii mu ngi lay sonal de xesen mën na yàq sa e, kanam mën na yàq sa dënn su la jaaxalee ba tey nga jël soble nga nal ko ndox moomu nga jël ko ba tey nga jël ndoxu limon soo jëlee ndoxu limon nga ut diw bi ñuy wax saytoon nga jaxase ñett yii ma wax la soo demee ba xam ne yaa ngi war a tëdd nga jël diw boobu nga diw ko sa dënn wala fi nga xam ne fi la bi ne soo ko ci diwee nga toog vingt minutes soo toogee vingt minutes nga raxas ko nga def nga def li ma la wax nii lu ma trois jours di nga gis ne ci kàttanu yàlla heure bi nekkoon sa yaram yàlla saafara na ko ci nam gën a gaawee wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.